France di doxe lay doxee. école voilà. Mhm. noppi ñu xëy imposé ñu ko. ñu amoon njiitu réew lu matut la mu doon. benn ndax am na ku fi njëkk a dugal ay kopparam yaabu Salim ot école boobu. Mhm. ñu xëy xëy kooku amlante ak président ba fa nekk ak lu mën a am. nit ki fi am ay bien président boobu xëy teg ci loxo. ci yenn dëkk yi mu yàpp Sénégal bokk ci parce que mhm. dafa yàpp Sénégal à travers son président. ba ñu xëy tëj école yi yooyu mu mën a perturber seen jàng mhm. waaye li ñuy wax rek bukki bu yebee boo xambaane ca doxin wala mhm. ci noonu tamit ba gendarme moom it xëy toog ne muuraay day dàkk ci loo xam ne tey dama yaakaar ne école publique comme privé mhm. privé yi état lañuy ñuy dimbale ci liggéey bi ndax état moo am pour jàngal ndax bépp xale bu góor wala bu jigéen. Mhm. am na yellee fi ñu jàngal ko. yaakaar naa soo demee ci constitution bi ca article vingt trois daf ne des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État. waaw kon li ma wax ni mun nañ ko ubbi. waaw mais ci kaw. ndigal. ak saytu ak saytu état saytum mhm. saytoom. c'est important. léegi loolu moom ñun dañu am suñu école. bëgg nu mu mel nit ñëw booy tijji mu am cahier de charge booy teg tey boo doon luyee sa kër teg benn cahier de charge mu am ay néeg ami douche man ma bëgg fu ma fanaan nga xam ko mais nga bëgg a taxaw ne waaw néeg bi mën naa la ko luyee nangam mais douche bi doo ci dem te man ma yàkkamti fu ma dëkk est-ce que nit ki dafa may wax loolu rek ma nangu wala ma bañ a nangu génn mu jox ko keneen damay lànk kër gi ci kër la nekk mais dafa nekk ci réew dafa nekk ci koñ mais dafa nekk ci réew mhm. su ma neexee ma ne la waaw dugg ba noppi dajji duus bi def la may def mhm. ba xam loo ci man da ngay teg sa école naan nu ma neex xam nga dëgg lu tax mu neex mooy amul cleur waaw bu ci xool sa baay nga koy wax mhm. bu ci xool sëriñ bi nga koy wax du làbbe bi ak du président bi dëgg-dëgg la suñ borom sax ci alxuraan ma ngi koy wax ci kax fi mhm. waxulil xaq min rabbikum fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur mhm. ci noonu xale bi laaj jëwriñ ji jiitu jëwriñ ji li fi xewoon ndax am nañu mu perturbé seen jàng amaana koo xam ne mën naa am moom jànge na fa ñu xëy ay waajuram mu jaral leen ñu xonc ko te ay waajuram dañoo bëgg mu muuru yow nga ñëw ma jànge sa kii CI ba classe ba ca topp ak ba ca topp. Mm-hmm. ñëw di war a yegg fenn nga daal ne ku fi muuru doo fi nekk ndax ma damay ko pour loolu wala damay dagg sama njàng mu perti bi ba. Mm-hmm. mais il faut et Macky Sall pour di accepter yëf yi ñàkk fayda yooyu. loolu dem ba àddina di dox régime bi changé ab xale bu ndaw. am réflexe heureusement mu laaj ko premier ministre wax lii. Mm-hmm. ñu teg ci ay fan benn abbé ñëw yow waxoo ci wàllu. école ni mu demee est-ce que li nga wax yépp di wax naan il faut dangay yaru ànd ak yar ànd ak teggin wax li bàyyi gat sa gat sa lu ci indi loolu boo koy déglu mel ni kuramaki ngay dégg muy wax mbaa Abdou Nguer yenn saa yi sax mu wax nga jàpp ne eh, eh, eh, ki yay wax ak Hélène Gueye wala Mati Fall yépp nekk ci mm-hmm. benn affaire moo am da nga def lii yoon may na la ko wala yoon mayu la ko est-ce que dañ leen a lincé nag ci l'église yàgg naa xam muuraay kon fu problème bi nekk mhm. yàgg nga koo xam kii ñëw fàttali la ko amul problème ah mu doon loo xam ne boo koy jàngat ba ci biir dafa mel ni dàq ganaar waxaale sa soxla mi ngi ci moom abbé bi abbé bi yamu mhm. ci dem ba ne dangaa war a régler bañ di gaaw a nangam ak nangam ah du ki yàlla xeexloo wala quelque chose comme ça yàlla sax bu amoon ñu koy xeexal am na ñoo xam ne ils sont exclus mooy ñi seen làmmiñ tilim seen loxo tilim seen geño tilim seen ceinture maanaam loolu lan lay sous-entendre tuuma ju fi amoon. Mm-hmm. nga jàpp ne tuumaaloon nañ ko wala yow nga jàppu ne dëgg la ak bu dul dëgg yépp même bu fekkoon dañoo togg toogoon ci moment bi muy am nga xam ne justice leeralagut sax amoo droit. parce que abbé nga. Mm-hmm. yaakaar naa Yeesu mu mi am na euh, ci euh, exemple bu mu joxe woon ne ku masuta mooy ci ki ñu masuta mooy ci yéen man ngeen a ñëw dóor ko. Mm-hmm. waaye ku masa mooy bu mu nàngam. kon mm-hmm. loolu Yeesu mu sell mi tere na loolu. mais fexe nga ba xel yi dem foofu. lañ ci wax. Mhm. kon yow lan ngay wuteeti ci mbir mi yegg ci banaan ko sa nguur nangam ci benn affaire boo xam ne di ko sous-entendre ëllëg dana daanu bisbu fi coup d'état amee wala lu ko niru wala nangam ak nangam man dinaa ne ci complice yi nga bokk. Mhm. mais njonguli yamut ci aad yi ba tey. Mhm. ah déedéet dem ba dépassé dem ba yegg ci pas-pas man nag dama ko teg ñaar. ñaar muy ñaar. benn bi mooy ci benn pas-pas bi. dama ci d'accord ak chrétien yi dinaa ñëw am na ci ay ustaas ci ma ci d'accordul te ñu ngi koy wax parce que man loolu dama ko yàgg défendre bi fi du Fall waxee euh, bi waa ji gaañoo Jean del Delmeda mu wax ci position bi ma ci amoon tey moom laay amaat. waaw mais man man man man personnellement. voilà. bëgguma ko ce débat là. déedéet yóbbu ko ci affaire non du du religieux. parce que bu boobaa rek. non non non man man mi ngay waxal ak man. Mhm. du question religieux. man mhm. boo gisee ma lay wax fii dama placé trop pour wax ci parce que lii yëpp dama ci yàgg di alerter. Mhm. lan lañ ma wax saa wolof ceddo bi gis nga suñu valeur yi ñu yoroon nga xam ne moo ñu bàyyi woon ñu nekk ci jàmm ba nëgëdi yooyu laay gën a sàmm. imam bu ko jalgati ma wax ak yow labbi bu ko jalgati ma wax ak yow. bi mu ci yeggee. yegg ci ba ci loo xam ne mu ngi su s'entendre wax yonent bi loolu garaawut mën nañoo metti wala nangam. Hmm. am na fu mu yegg ci biir di wax que Jésus bi ma gëm mooy bi ñu faatu dekkiwaat gëw ma Jésus bi ñu ne dañ ko niroole am na ci droit parce que ñun suñu alxuraan ñun musulman yi alxuraan. Hmm. ci gëm moo indi loolu. man na cee jàpp ne daf ko vexé moom bu gëmoon loolu du nekk chrétien kon day nekk jullit comme man man loolu awma ci problème ñi koy ŋàññi ci côté boobu non dama wax ne foofu su ko neexee wax gi sax man amuma ci problème parce que du jullit mm-hmm. te bu ko gëmoon day nekk jullit te foofu li tax ma fiy indi niral mooy yonent bi daf ñuy jàngal saa su nekk am na ci benn pacte bu am amoon boo xam ne signature bi Muhammad Rasulullah daf ci nekk mm-hmm. ñi ñu waroon a defal pacte bi ne ne ko yow rasulullah ñun gëmuñ rasulullah kon doo ko ci def bi mu waxee loolu yonent bi ne Seydina Ali la ne na ko far Seydina Ali xalaatu koo far. parce que dafa xër. Mhm. comme ni ma xëree keneen ak keneen xër. yonent bi laaj ki mu doon signal pacte bi ne ko ba fan la yem xam nga yonent bi illettré la woon loolu mooy sax dèjà bokk na ci kéemaan yi mu ne ko fii la tàmbalee mu far Muhammad rasul maanaam rasulullah ji def ci Muhammad abdula Abdullah. Mhm. kon loolu kon da dégg ne yànnante bi jàngal nañu nan la ñuy nekkeek nit ci biir réew mi ma bokk ak nit wala nangam ak nangam parce que réew moo xam ne danga fee nekk mu doon laïcité laïcité nag buy dugal buy boole baa mm-hmm. buy tàqale mm-hmm. léegi même abbé li mu wax Ousmane premier ministre mm-hmm. première ministre tuddul benn religion ñu dellowaat ko fi mu nekk dafa ne France la wax li muy wax ñi nga xam ne tey yenn réew yoo xam ne accepteel nañ leen ñoom li ñuy def parce que dañu fa taree loolu loolu la France def. Mhm. Ousmane Sonko li mu tontu wala li mu wax xale bi France la concerné. te bu ñu ñëwaatee ci France keroog yaakaar naa mami. seq nañ émission ma ñaawlu li ñuy wax dernier repas du Christ biñ blasphémé ci si yi weesu soo ko fàttalikoo talaata. Mhm. Macron njiitu France ñu xewle Jeux olympiques bii 2024 am ci koo xam ne tableau Leonardo Vinci bi mu sargale yonent yàlla Isaa mu sell mi mhm. tudd naag sellam dañu ci blasphémé maanaam saboote tableau boobu jël ko jox ko ay góor jigéen mhm. ñuy défilé ci kii bi képp kuy catholique naqari na la waaye képp kuy jullit war na laa naqari man bokk naa ci jullit yi mu naqari mhm. oustaz Momar Diagne ci Louga bokk naa ci jullit yi mu naqari ndax moo ci attiré sama attention defuñ ko keroog kon ñun amuñu problème boobu France moomu nag yàgga toroxal diine man ci joomaay 2024 mooy ci seize joomaay président dama taxaw ci pupitre bi booba la affaire yi am Macky Sall toxalaat élection yi guddi ma dem ci pupitre bi ne leen suñu kilifay diine ci fépp nag su ma sañoon lii ñu jàpp ci jëlee Macky Sall ci lii mu nekk mbir mi nag barigo ci mbartal la. Mhm. dana soppeeku ci nii wala mu soppeeku ci naa waaye bëgg naa mu soppeeku ci nii li tax bëgg moo ci naa ji mooy bëgg moo ñu mel ni France. Mhm. ñoom ba ñu soppee seeni mbir ba noppi dañoo ne diine bokkatut diine da leen sonal diine moo yàgg kompaloo ak way nguur ya di leen toroxal ñan la France joxoñoon baaraam tey l'église gëwma li France wax mais loolu mooy seen problème république française gëmul église parce que seen njiitu réew du waat ci bible du waat ci Torah du waat ci Coran euh, alxuraan au de la république lay wax. moom mm. nee na république la gëm. fii nag ñun dañoo yor laïcité boo xam ne boo koy compareel peut-être bu États-Unis nga koy compareel mooy diine yëpp bokk nañ mm. weddiwuma kenn nag ku nekk respecté sa morom te yaakaar naa loolu moo gën di maandu. États-Unis mën nga nekk président chrétien ci bible ngay waat juif bi ci euh, Torah lay waat musulman bi ci alxuraan amaguñ président ki mais am nañu ñoom ay gouverneur wala ay nit yoo xam ne nekk nañ ay falu nañ fa ndomba tànk waat nañ ci alxuraan kon loolu mooy laïcité bi boole kon làbbe bu ñëwee wax Ousmane Sonko ne ko amal yar wala nangam nangam moom li mu wax du waxi ko am yar waxi ñàkk teggin la wax ñeneen ñi koy tontu tamit di ci buruxlu di jëlaat kii bi di contre am na ci ñoo xam ne buruxlu la ñuy def gisoon nañ li ñu wax bu yàggut ku koy tontu it yamale ko ci moom te bañ ci laal diine ba mu bokk wala ñeneen ña mu bokkal. Mhm. André Latyr njaay la tudd dib abbé mu ngi mel ni rek imam Dramé mii fi wax lu lu lu wax lu dar gémmiñ bu yàggut nit ñi dañoo taxaw wax ak moom fii ku fi mës a wax dérapé ngay sëriñ wala ngay nàngam beneen bi nag muy Pastef suñ borom daf ci dimbale Sénégal mooy wet gu nekk ña fa xam ña fa yaru ña ca ëpp ñoo booloo nekk biir Pastef looloo tax dara du ñu jaaxal. Mhm. nervi religieux ak bu mu mën a doon que ça soit muy musulman wala muy chrétien wala muy leneen mënoo ci projet bi dara projet bi nag. gis nga wax ji abbé euh, kii André Latir abbé wax moog wax ji Bougane wax ak ji na Alassane lu wax ak wala bi beneen. beneen tappalekat di waaj a wax ñoo yem France nekk ci ginnaaw. France mel maa la ko wax. lii mu wax nii lii mu defendre fii. Mhm. du église parce que église xam na muuraay moo ma ko wax. non il faut et puis. kon église du problème mu muuraay du problème mu. église foofu à préciser. que il n'a pas parlé waxul au nom de l'église. moo tax ma wax ne. parce que tey dama gis ci ay une ñu naan l'église tayaat Ousmane Sonko l'église c'est pas l'église. c'est pas l'église moom du porte-parole église te église yebalu ko ça aussi il faut que les les, les gens arrêtent di def ay dilemme moom moo jël bindu boppam à titre personnel def sortem église yoonam nekku ci code de la presse ah. su ma juumul seen article